bila alil azim bismillahi rahmani rahim asbuna allahu wa nimal wakilu mawla wa nimal nashir asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen bokk ni seetaan ci réew mi ak ci biti réew fu fi waay manti nekk rek ñu ngi lay nuyu nuyu bi gëna sel sell tey ñaan sunu boroom tabaraka wa taala mu may nu nu yenn ci jàmm te fanaane ko di ziar suñu kilifay diine yëpp di leen ñaanal seen ndono lii yal na leen ko yàlla téyal ba dara du ci yàqu di ñaanal kilifay aada yi di ci jiital ki yàlla teg ci boppi réew mi muy son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar fay ba ci ki gën suufe kenn ku ci nekk lépp luñ la jox pour tabax réew mi yàlla na ci yàlla jàpp yow min ko joxit nga jàpp ci waggar ko ba lépp sotti Sénégal jëm ca kanam di ñaanal ñi feebar yàlla na ñu wér ak jàmm ñi juumoon dem kaso it ñu ngi leen di ñaanal bu ñu fa jógee yàlla bu ñu defati lu leen fay delloo di ñaanal bu baax nag sunu bokki sénégalais yi nga xam ni foo dem ci àdduna bi tabaar fakàlla macha allahu fekk leen fa te jom ak teraanga tax leen jóg yàlla na leen yàlla sàmm te ngeen dajee xéewal yu yaatu ba ñibbisi ñu toog tabax suñu réew di sant yàlla bu baax moom mi nu may ñu dellusi dellu santaat ko it li mu ñu def ñu doon doomu réew bu tedd bii di Sénégal Eh, tey nag sama waay ñëw na quoi dabba gaa yaa ngi ma koy laaj ana dabba ana dabba mu ngi nii toog waaye nag eh, démb xam nga dañ doon waxtaan ci importance su ministère de la culture waaye kilifa yu bari wooñu ni wax dëgg yàlla nañ ko continuer gën ci waxtaan ndax eh, xam ngeen ni culture ni ko boroom xam-xam yépp waxee maanaam dara munta dox te culture doxut bu fekkee da nga bëgg a doon sa bopp il faut nga sukkandiku ci sa aada ak sa cosaan xam nga dàbb am na ay jamono may def ay émission démb ci restauration des royaumes ba président de la république bi fi nekkoon di son excellence le président Macky Sall woo El Hadji Ndiaye ni ko paas ma El Hadji Tall Ngol ñu waxtaan ci téléphone lu war a mat presque vingt minutes ndax xam nga président Sall dafa bëgg lool affaire aada ak cosaan euh, biñ ci waxtaanee d'ailleurs looloo motivé woon sax mu recevoir ma ci ci audience bi affaire histoire rek lañ doon wax surtout bi ma ko expliquer lu tax ma ni nañ restaurer sunu royaume yi parce que kenn ku nekk bu fekkee da nga bëgg sa doxin rafet da ngay sukkandiku ci li nga fi fekk. te mu baax li nga fi fekk nag te jagul nga teg ko nee ñun dañu baaxoo woon euh, royaume bu nekk dafa daan am kilifa euh, kilifa googu euh, mën naa wax ni tey mooy gouverneur walla préfet walla sous-préfet ndax tubaab bi moo fi indi yooyu waaye ñun ay buur lañu amoon ab royaume lañu amoon te royaume boobu du woon ku mu neex rek nekk ca bopp ba dafa am ay critères boo demee fu mel ni Kajoor dañu la naan euh, il faut nga bokk ci Wagadu wala Soño wala Muyooy ah wala Géej wala Dorobe pour nga mën a falu mais boo demee royaume du Sine dañ naan il faut que nga nekk gelawaar sa yaay nekk gelawaar pour nga mën a falu muy loo xam ni nag réew yi nga xam ni ñoo nekk en Afrique bari na ci yoo xam ni ba léegi seen buur yooyu fu buur newoon ma nga fa boo demee Burkina Faso Moronababa gis ngeen doole ji ko yàlla jox gañe na fii sax prix euh, prix du président Macky Sall plus de trente millions euh, te bi nga xamante ni coow am na ci diggante Blaise Compaoré ak euh, waa Burkina Faso Morona baa boobu moo regle ba réew ma tegu ci jàmm Blaise dem ñu def ay élection euh, muy loo xam ni euh, day day day dafay dafa ay régulateur lañu parce que ñun suñu suñu suñu cosaan mooy am kilifa te dafa mel ni léegi dafa rafle te fi mu ne boo demoon Casamance le roi suy ak roi yu bari ya fa ne parce que du moom rek moo fay roi bari na fa ay roi mais roi du suy tey jii réew mi mu nekk bu ñu amoon lu ñuy def te moom mu wax ci la mu leen digal moom la ñuy def nga xam ni c'est le porte-voix de la population muy lu ama am solo fi mu ne bu fekkoonte ni par exemple xam nga boo demee Siin am nañ buur Siin Ñoxobaay Juuf Ñoxobaay Juuf moomu ñu teg ñu ñu fal buur siin tey jii bari na loo xam ni su ko waxee ci waa siin ña ca ëpp dinañ ci ànd ak moom bien que nag léegi sénégalais nangootu la am kilifa waaye ñoo ngi ñaan bu bu ñu defaralee ministre ministère de la culture parce que doon naa ci wax ak ministre de la culture bi fi jóge Aliou Sow ba mu d'accord ci lool ba ñu sori woon ci pour fexe ba restaurer royaume yi nga xam ni tey boo demee Kajoor fekk fa Dameel nga dem Bawol fekk fa Teeñ nga dem Waalo fekk fa Barak xam naa ñoom du jaw ba xaw ñoo nga ca parce que lu ama am solo la nga dem euh, Siin am nañ buur Siin Saalum am na buur Saalum Cerno Ndaw ak ñaari buur Saalum a fa newoon sax ndeysaan Gédel Mbóoj moom yàlla moom na ko yàlla na ko yàlla xareel àjjana suñu xarit la woon suñu masaana dem Kaolack sax ci moom la ñuy dal muy nit ku baax ku fonk culture ku fonk aada tey jii Thierno Ndaw moo fa nekk di buur Saalum muy lu ama am solo e, boo demee Waalo bu ñu amee Brak nga dem e, e, Njàmbur ñu am Jaraaf Njàmbur mbokki général Maysa Sele Ndiaye yi parce que loo yooyu yëpp ci cër yi nu amoon la pour réew mi tegu ci aw yoon nga dem nga dem fu mel ni jolof fekk fa buur ba jolof buur ba jolof jolof googu nga xam ni empire la woon sax moom weesu woon na royaume ndax am na jamono joo xam ni jolof ñoo yilif euh, royaume yi nekk Sénégal yépp ni ma leen ko waxee démb rek muy loo xam ni nag bis bu nu ko defee nday sànn sama xarit bu baax ba yàlla na ko yàlla yërëm Ali Khoudia Ndiaye euh, bu ma ko masaan ni buur ba jolof day kontaan bég ndeysaan te te te jolof boo fa demee rek ak ñee fa dëkk nga xam ni dëgg-dëgg euh, ñi boo gisee seen sët yi xam ni fa ñu jógee fu baax la parce que nag damay wax toujours ni euh, baaxu maam sama maam baax na jërul wax bu ñu la gisee rek yow yaay tari sa maam ndax kër gu yàqu ab sët a ko yàq waaye kër gu defaru ab sët a ko defar waaye boo gisee sëtub buur si sëtub euh, buur ba jolof sëtub biram njéemé kumba wax dëgg yàlla vrai da ngay xam ni kii fa mu jógee tabarkàlla macha allahu te yooyu mooy mooy mooy defarum réew bu ñu bu ñu jël bu ñu jël rek ni parce que tubaab bi ñëw na fi tas sunu royaume yi te moom pourtant boo demee ci moom mu nga mu nga téye ay buuram tubaab yépp réewu tubaab yi fi ne nii Belgique Belgique bu a fa ne Espagne buur a fa ne euh, Angleterre France am na am na am na am na buur ñu nga téye seeni buur ba pare tas sunuy buur parce que liñ ci bëggoon mooy bu nu tasaaroo amatuñu kilifa yàqu nu day yomb ndax amatuñu wéerukaay te xam nga ku wéeruwul fenn booy ba muy daanu mooy lii nu dal te boo demee Guinée gii wala nga dem Mali wala nga dem Burkina mais ku fa newoon buur ba tey buura nga fa buura nga fa mais pourquoi ñun ñu am complexe su restaurer suñuy royaume te loolu ministère de la culture te lu ama am solo la sax ci autorité yi parce que buuru Angleterre bee yàqul dara ci doxu république ba yàqu ca dara da ko au contraire da koo gën a defar ndax man mas naa dem euh, Birmingham fi fi reine bi dëkk xam nga reine bi euh, dabba yàgg na fa lool bu jigéen bi Elizabeth mais gis nga anglais yi buñ koy xool nii yor seen appareil photo di ko photo ci balcon da ngay gis ñuy jooy ndax cër buñ ko jox nga xam ni reen bi am na buur ñoo xam ni sax bu nu masaan a ñëw ganesi ko doo ko jox loxo boo koy nuyu da nga naan nii rek mais doo ko tàllal loxo mu mu doon mu doon buur bu dëgër nag boo xam ni waa réewum dañ ko fonk dañ ko jox cër lu mu wax ñu ni waaw mais ñun nag tubaab bi ñëw tas sunu sunu sunuy royaume tas sunu sunu organisation bi nu amoon bépp sunu administration laa ko mën a waxee sax ñoom ñu tas ko ba pare ni noonu ñun bàyyi leen nu téye nun sunuy buur di leen màggal yéen bu leen amati buur moo indi pëccëxoo bii ba léegi da ngay gis ku war ne ca ginnaaw bëgg a ne ca kanam da ngay gis ku wër ta wax di wax loolu lépp li ko def mooy baat dafa amoon boo masaana dem ci royaume am na fa géwal boo xam ni géwalub juddu buur bi la seeni maama àndoon mën naa am ñu nga jóge Fuuta wala Égypte wala beneen fu sori mais mosuñu tàggoo bu buur bi demee ba ba falu moo koy waxal moo yor moo yor moo doon ministre de la communication lépp lu buur bi bëgg mu dem ci ñi mu jiite géwal boobu moo koy dox moo koy wax ba lépp sotti lépp sotti ci jàmm yooyu nag fondamentaux yooyu il faut pas nu koy xeeb faut pas que ñu naan parce que dafa am ñoo xam ne soo waxee dañ la naan noo yooyu xewwi na mais yow fi nga jànge fa nga roote fa nga naane ba ni loolu xewwi na ñoom xewwi luñ seen buur ñoom bu fekkee tubaab bi moo la yàq ak acculturé la mais tubaab baa ngi téye ay buuram donc yow bul complexé parce que ñépp a yem daba man mosuma ci d'accord man man bu ñëpp yemee <laughs> sama xarit Aliou Lo danaa ma bul ni bul ni gedd naa samp cër da nga naan maag Aliou Lo ak ñu mel ni ñun gedd nañ sunuy cër bu ñëpp yemee ndax yem ak ñëpp moom kooku kooku wérul ku d'accord ni yaag ñëpp yem am na loo manqué parce que am na valeur yooyu bu nee ci doomu aadama mënta yem ak ñëpp ki am valeur ak ki ñàkk valeur mënuñoo yem te boo xoolee ci fas yi defe naa ni l'exemple bi gën a patent mooy naaru góor ak par am na fas woowu fii bu juddoo balaa fer nga jaay ko 10 million am na fas woowu man mi yor naa fas woowu di di di nga ko xont di ko yar ba mu am fukki at ci sa loxo mënoo koo jaayee un million parce que juddu ba xaj yii xaj yii am na berger allemand yoo xam ne million lay jar wala million ak nangam mais am na xaj boo xam ne bu juddoo ci kër gi dañuy maye kutiya bu ñu feree rek ñu maye leen ndax amuñu prix waaw ginnaaw mala yi sax ñoo am juddu waxuma ak nit ñi. mais bu nu bëggee nag jël juddu sànni ca ginnaaw ni juddu amut néeg amut geño amut ween amut mais ça veut dire que cette société la elle est bafouée elle est bafouée nañu am fulla restaurer suñuy royaume fépp fu daan am cër nga xam ne da daan joxe ay ndigal ci réew mi nit ñi di ko def te muy lu rafet di lu jaadu di lu baax mu delloo ko fa mu nekkoon moo tax maa ngi ñaan les nouvelles autorités le président Diomaye mu fexe ba ñu am ministre de la culture ministre de la culture munta ñàkk ci réew mu mel ni Sénégal parce que Sénégal li fi baax lépp homme de culture yi ñoo ko fi def li fi baax d'ailleurs ñun bu ñu xoolee suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñuy suñuy fi président yi fi fal bi ci jiitu muy Léopold Sédar Senghor mais Léopold Sédar Senghor ñi ko xam ñëpp waxuma turu président gi de mais homme de culture la Léopold Sédar Senghor mu njëkk nekk sénégalais bu doon académicien en France lan moo ko ko jox parce que c'était un homme de culture un homme de lettres donc bu nu bu nu xeeb suñu bopp mais nag dafa am ñoo xam ni dañoo xeex royaume te di ay sénégalais juddoo ci royaume yi mais di ko xeex ndax sénégalais dafa am benn défaut bu ñu am bopp fokk nu ba ko maanaam même booy defar def dara sax da ngay bëgg a fekkee njariñ la déedéet yow su fekkee da nga bëgg a amal njariñ patrie bi defal loo xam ni bu njariñ lay ñëw sax mën naa am fekk na suul nañ la ci suuf yàgg na waaye nag ba tey jii nit ñaa ngi ciy jariñu njariñ loolu tuyaaba ja ma nga lay fekk ci sa biir bàmmeel waaye bu bu dee loo loo sémb rek da ngaa bëgg a fekkee njariñ la togg ko ba mu ñor ñu yekk nga lekk ca mais yow yow yow doo doo patriote parce que un vrai patriote day am vision vision bi mooy loo xam ni yaa ngi koy tàmbali mais fii téeméeri at lay baax yow wóor na leen du la fi fekk waaye tàmbali nga ko bés bu yeggee di njariñu peuple bépp mais kenn du la ci ëpple mais lu ma tàmbali daal damay fekkee njariñ la cin li bu paree ma lekk ca mais loolu loolu loolu du réew mais état bi bu xamoon njariñul restaurer royaume yi nga xam ni tey jii soo demee Kajoor bu fa président doon dem tey jii ki muy njëkk a nuy ji mooy la la la la boo demee Jolof bu fa président demee ka muy njëkk a nuy ji mooy la buur ba Jolof xoolal tey jii président bu demoon Casamance roi du suy lay dem nuy ji ko te gis nga boo demee ci peuple yi am buur ñoo lay ëpp yar ëpp la teggin gën laa téye seen cosaan du ñu sàcc li ci ëpp du ñu sàcc du ñu fen dañoo am lu nuy jomm parce que dañu am référence mais mënoo baax te amoo koy roy ce n'est pas possible dabba mii léeg-léeg mu ni eh lii de du ko def parce que taal ngool-ngool nee na taal ngool-ngool nee na ceddo du def lii kon du ma ko def mais loolu déjà c'est quelque chose mais bu fekkente ni par exemple amoo kenn koy roy maanaam ki nga waroon a roy sax yaa ko tane far ki la waroon a yar moo la gën a yaree di ko ki la waroon a gën a maandu moo la gën a maandoo di ko nooy maandoo mais ñun xamuñu li baax ci nun li baax ci nun mooy fexe ba ñuy am kilifa kilifa mënul ñàkk gis nga même sëriñ si sëriñ si li tax ñu am solo ci réew mi amul benn gis nga ca Amari Ngoone Sobel Fall xam nga dàbba kuñ ko tuddee Amari Boubou ja ab sëriñ la woon buur boo mas dem këram fekk fa ab sëriñ mu di leen jàngal mbaa mu di leen atteel bàyyi ma jaxate kala atte moo ko yóbbu woon Saalum ate moo ko yóbbu woon euh, euh, euh, dëkk ba nu mu tuddati Mbakke Kajoor moom Maam Mor Anta Sali waaye juru sëriñ Touba ñoom ñépp ay kaddi la woon daan atte parce que booba tribunal amul mais am na ñoo xam ni jàng nañ alxuraan xam te booba sharia la ñuy atte maam Xaalid ci sharia la daan atte xam nga kon booba daanaka république islamique lañ yor buur baa ngi fi mais ku def loo wër def ñu atte la ci alxuraan mooy les kadi am na bo dameel boo xam ni moom ndeysaan kajoor booba amul kadi waaye dani benn waay bu rey nit mu ni ko boole leen ko ki mu rey ñu suul ko bu ñu demee yàlla lijjanti ko ndax man xaw ma lu alxuraan di attee lii mais toog nañ ay ati ati at gisoo fa ku rey kenn te yooyu c'est des valeurs yoo xam ni il faut que ñu am fulla jëmbataat ko te garab gi deewul de dafa gëmm rek ndax roose ko waaye comme ni ma la ko waxee démb rek bu sa tubay tubay moom bu geñee ko daggee lenn képp mooy pexe toog summi tubay ji ñoor ko waaye sa geño dagg nga bëgg a doxeek tubay ja ah saw doxin du rafet de te Sénégal bu nu xamoon ci li li culture bi mën a defar même même mbay mii nii wax dabba mbay mii nii wax naan tool yi tool yi tool yi tool yi mais tool yi ginnaaw ña fa dëkkoon defuñu ci ñoom ancrage boo xam ni kenn ku ne day fonk ab dëkkam téye ab dëkkam ba far na dem yoonam am na ñoo xam ni seeni maam ñoo jóge woon Kajoor ñëw Ndakaaru delluwaatunu Kajoor jur fii doom xëy na kañu takk sax bokkut ak ñoom dara faatu ay ay ay doomam donn ko doomam yooya faatu ay sëtam donn ko ñooñu mën nañoo dajeeg ñu nu bokkal menn maam te duñ xamante parce que aar amul enracinement maanaam dafa dagg euh, le cordon ombilical te loolu yépp ñàkk xam sa bopp la ñàkk am kilifa la mais su fekkente ni kajoor par exemple dañ naan dammeel bi daa woote tel jour chaque année am na bis bopp ñun ñëpp ñooy daje ca dameel na ko ma daan defe bu waxee ren balaa waxaati déwén te lu mu wax waa Kajoor def ko ba déwén ñu ñëwaat mu waxaat ak ñoom nga ni nan ko sànni nële mais loolu loolu loolu yóbbuwunu fen xam naa nag bu nu amoon parce que am na ñu ma ëpp xam-xam fuuf ah téléphone yaa ngi nii am na ñu ma ëpp xam-xam fuuf ci liy defar réew mi ndax toujours ma wax la dàbba ni la toog di wax ci télévision am nattu la waaye ñi lay seetaan bu dee fukk la juróom-ñett ba peut-être ñoo la ëpp xam-xam ñoo la gën a xamit li ngay wax contribution yooyu nag ci sujet bi dafa am solo parce que euh, boo demee ba xamatoo foo jëm da ngay dellu fa nga jóge woon te wolof aw léebam dong ay leçon la boo demee ba xamatoo foo jëm dellul fa nga jóge woon ndax waaw kay ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum aleykum waaw Tall naa ko mun na nga def waaye. sëñ bi noo tudd ak foo nii woowee. man pour dam koy leb maa ngi lay woowee dakaar xam naa ne su ma la woowee après hors antenne di nga xam kan la. acca bismillah. <laughs> wallaahi azim bi nga xam kan la xam naa ne xam nga mu bu baax. dëgg la dëgg la waaw man damay wax ci affaire culture art. barki Dembo Ndiaye wala barkaati démb ci fan yi passé rek. Mhm. dama gis benn waay taxaw télévision. Mhm. loolu mu wax c'est extrêmement grave day dama ci rus mhm. ndaxte mi ngi wax ci décoration bi président Macky Sall doon defal mhm. mbër yi ak artistes yi mu leen di laaj ji ne leen muy wax ne waruñu leen woon décorer parce que defuñu dara defaluñu dara Sénégal ma koy xamal keroog su ma mënoon teew ci télévision boobu muy def plateau dinaa ko wan ne artistes yeeg mbër yi. Mhm. njëriñ li ñu amal réew mi ak li ñu defal réew mi. Mhm. Mhm. ah waaye dagg na waaye. oh là là boo mënee dugaat waaye nga dugaat su ma xarit parce que nag gis nga Daba culture mooy rafetal aw dundin culture nag dafa yaa culture ci doxin sax la ci waxin la. ci melokaan la yu bari nit manqué na ko parce que il n'est pas amul culture walla fonkul culture am gis nga boo xoolee euh, Ablaye Mbuub bi fi daan woy bi mu naan pétrole baa nga mbaaw bataa ba tëng géej ciment ba barñi yaa ngi dégg woy woowu boo ko daan déglu dangay xam ni kii woy wi am na contenu xoolal sunu sunu artistes yi bu ñu la defalee tablo tablo bi ci boppam day wax fi mu ne nii culture Sénégal yeggoon na ci foo xam ni kenn mus ko gis mais léegi déglul woy yi niy teg ci yi ngay dégg dama laa nopp dama laa bëgg dama laa nopp dama laa bëgg mais loolu du du wax xam nga Njaga Mbay am na woy bu woy dëkk ba ma jëm daa sori saxaar ga fa jëm déqi na naa muñ léegi ma seen gaañi xam nga lu mu lay wax dee dee la lay wax gis nga dëkk bi nu jëm ñun ñëpp mooy bàmmeel saxaar ga fa jëm déqi na yóbbu na ñenn boo muñee tuuti mu ñëw jël si la yow it nga fe nga nga si nga gis gaaña loolu loolu mooy woy contenu mais léegi gis nga am na ci ñoo xam ni ni ñu koy defee moom ça n'a plus de sens parce que boo masaan di déglu ku mel ni ajaratu mbana yal na yàlla woyofal suuf ci kawam mooy woy juru soxna Lison Mbóoj mais bu lay woyal waa waalo ak reen ya fa ne sa yaram day daw ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. aleykum salaam. sëriñ bi noo tudd ak foo nii woowee. Euh, maa ngi lay woowee Mbour damay leb tur bi. acca lebal naa la bismillah aywa man dama gis ngay waxtaani ruwaayum yépp mhm. waaw dafa mel da nga fàtte Fuuta wala dafa am lu la booleeg Fuuta wala xamul histoire Fuuta ah? Fuuta waaw ah Fuuta kay mënuma koo fàtte <laughs> ah waxoon ci histoire Fuuta dara ba war sil pourtant def naa fa émission de Euh, man damay damay gis ni souvent nit ñi bu ñuy dox Fuuta moom dañ koy xaw a fàtte ñun. Fuuta waaw waaw mais loolu loolu ñoo ngi koy jégalu Fuuta moom mënuma koo fàtte ndax man fa laa cosaanoo. <laughs> waaw waaw dégg la <laughs> dem naa ba Daara xale yi be. <laughs> Eh, waaw waaw histoire. Ah, Fuuta mooy Sénégal. waaw waaw waaw waaw jërëjëf jërëjëf. d'ailleurs boo demee Kajoor sëriñ sa fa nekk yépp Fuuta lañ jógee. waaw. sëriñ Touba Fuuta la jógee El Hadj fa la jógee. Fuuta moom ëpp naa fàtte parce que Fuuta nag euh, dëgg-dëgg xam nga euh, seen digganteeg waa Kajoor mooy daaray Pir ji daaray Pir jooju nga xam ni xaale Amar Fall doomi jéggi ba nga xam ni mook Samba Gilaay Jéegi ñoo bokk benn wayjur bu jigéen moo sanc daara ja 1603 même la révolution torodo foofu lañ ko nase ci daaray Pir jooju Ceerno hmm? Suleymaan Baal Abdal Xaadir Kan ba dem daaneel dañenke yi di fa fal imam Fouta moom dëgg-dëgg c'est c'est c'est mën nañu wax ni c'est le grenier de notre histoire parce que ñi baax ci réew mi ñëpp am nañ fa ay reen Fouta ëpp naa fàtte sëñ bi loolu moom ko xam naa dama ko dama ko dama ko tëb waaye ëpp naa tëb ndax Fouta moom ba léegi boo fa demee xam ni ñii téye nañ seen bopp c'est rare nga gis dëkk dëkk ca fuuta dëkk bu toxu yenu seeni néeg ni waa Kajoor def ak Bawol dem feneen mais doo ko gis fuuta dangay dem ca àll ba fekk fa ku fa defar immeuble bu jar deux cent cinquante ca àll ba waaw lu baree bare bari am fuuta waa fuuta ñoo ko defaral seen bopp moo tax gis nga nit bu xamee boppam rek day xam li ko war waaw ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam waaw ci ci ci ci gàttal. Euh, waajoo bi dafa def erreur bu rëy. ndaxte culture su ko su ko day traduire ci olof mooy suñu cosaan ak suñu aada. Mhm. te loolu. Mhm. mu ci fekk ci tëgg di ci musique. Mhm. di nga dem ba naaw suudeer yi ni boo fa am na ay artistes sénégalais yi nga xam ne yóbbu nañ fa culture Sénégal. bu ne boo boo taxee rek ñu ne xam ne kii boo ne Sénégal ñu la mhm. ku ci mel ni El Hadj sport boo ne football ci àdduna boo tuddee football El Hadj Diouf lañ wax mhm. mooy mandat du football ci Sénégal mhm. boo ne culture ci musique dina nekk limal ay Youssou Ndour Baaba Maal Ismaïla yaa ngi dégg ay orchestre Baobab yaa ngi dégg suñu orchestre mag yaa ngi dégg ay nombre war yooyu nga xam ne ay Pape Seck Dagana mhm. seen i seen seen i wéy ak yu i yëf ak àdduna bi yëpp daaw dañ ko reprendre ay mhm. américain bi seen yu rëy li mhm. nga xam ne loolu yàlla moo ko mu soosoo fii ci Sénégal suñu réew dëgg la kon nag bu président Wade bi toogee ba tey jii xëy na sax tardé na mais nag mieux vaut tard que jamais muy décorer artistes yooyu di leen ko sargal di leen jox teraanga toll noonu moom Sénégal moo leen ko delloo kon nag dañ ko mérité dama yaakaar ne nag kooku dafa def erreur bu rëy parce que la mu doon wax noonu li wax ne ñooñu waruñu leen décorer yëfi caaxaan la kooku dafa def erreur bu rëy rëy kooku daal maa ngi koy ñaan mu xoolaat boppam xoolaat la mu wax mhm. su ko mënee jubbanti ñu doon doon ndam ci moom ndam ci Sénégal ndam ci réew mi dëgg la loolu daal laa ko bëggoon jël daal nag mhm. dinaa la jox misaal pour nga xam kañ la dëgg euh, ah, ah. kii wax ak yow. Ah. kii wax ak yow. ah ma ne dinaa la jox dinaa la jox misaal pour nga xam kan la. waaw. Euh, benn waay la daal bu nekkoon ci orchestre bu gën a màgg ci mag ci fii ci Sénégal. orchestre boobu ku ñuy wax Pape Seck Serigne Dagana daan na ci woy. Mhm. Doudou Alassane Sow daan na ci woy mu ngi woon ci orchestre boobu ku ñuy wax ma ne Mamane Fall ma nga ca woon. Mhm. waaw. Euh, loolu daal booy misaal bi nga xam ne mën naa la ko ci jox am na nag kenn ku ci nekk nga xam ne ah turam woykat yi saa yi daan woy ba ba teeral faw ñu woo woo dimbali ñu wala sargal ñu. Mm-hmm. sa télé bi nag moo tax dégguma bu baax. ma ne ci ñoom la bokkoon. sa uh-huh. sa télé bi sa télé bi moo tax dégguma bu baax. waaw ah, télé bi pour tax ko fay de. Uh-huh. waaw. waaw ma jërëjëf. xam nga Daba. Euh, tëgg nii xam nga mi ngi wax ñi doon décorer mais artiste surtout ku demee ni Baaba Maal fi mu yóbbu culture Sénégal ku demee ni Youssou Ndour ku demee ni Omar Pène ku demee ni yeneen artistes yi yu mag yi de vrai artistes fi nu yóbbu culture Sénégal dëgg-dëgg ñooñu bañ leen waree décorer sax dafa yàgg cest diir nag télé yi léegi dabba euh, da ngay gis kuy wax ci lum xamut te à chaque fois ngay wax ci loo xamut njuumte rek ngay wax Doudou Ndiaye Coumba Rose du moom lañ tuddee grand théâtre mais agi Doudou njaay Coumba Rose da doon tëgg ak japone japonais ci ñi ci ñi yóbbu turu Sénégal ba tey jii kenn du laajte Sénégal El Hadj Doudou Ndiaye Coumba ci la bokk El juuf Diouf mais El Hadj Diouf icône la Sénégal amul benn sénégalais boo xam ni 2002 El Hadj Diouf jooyloowu la ci sa xol bu sedd El Hadj Diouf malgré que amuñu coupe du monde amuñu coupe d'Afrique mais El Hadji Diouf nous a rendu tellement de satisfaction il mérite qu'on le décor parce que ci football Sénégal ki mu am mu gën cee siiw gën cee ràññeeku c'est El Hadji doon guerrier Sénégal jaral ko lu ne xoolal Jules François Bocandé dem na ba tooñ arbitre ñu ruus ko pour mu ñëw footballal Sénégal dóor marqué fii trois buts contre le Zimbabwe pour ñu delluwaat Coupe d'Afrique te toog nañ defe naa treize ans xaw ma lu ko ëpp demuñu Coupe d'Afrique ces grands patriotes là mais ñooñu bu ñu leen décoré wul ku ñuy décoré yow miy wax loo xamul la ñuy décoré yow miy wax luy yàq réew mi yow miy wax luy taal réew mi yow lañ war a décoré yow dañ laa war a saañ nga noppi parce que booy wax da ngay wax ci loo xam am na ñoo xam ni. mais El Hadj mbay Mbaye El mbay Mansour parce que gis nga ñu baree bari dañ naan géwal géwal mais waatal naa la ci yàlla ne dabba bis bu nu demee ba Sénégal amatul géwal Sénégal dee na géwal mooy ndox miy suuxat garab gi la société géwal moo ci mooy suuxat euh, société bi Hadj tabarkaal la yàlla na fi gën a yàgg mais mas ngaa dégg yow dabba El Hadj Mansour wax lu yàq mas ngaa dégg Aji Mansour génne ci làmmeñam wax ju ñaaw mësoo ko dégg mas ngaa dégg Aji Mansour dem ci mbooloo ñu toroxal ko fa mësoo ko gis te doo ko gis Aji Mansour ni muy amee bunt yu ñu koy ubbil Tiwaawoon noonu la ko amee Tuubaa lu ko waral waxam ju rafet yéeneem ju rafet taxawaayam bu bu bu buy defar Sénégal looloo tax nit ñi jox ko cër bi ko jox mais am na loolu bu ko doon wax du ko am te am na loolu sax boo ni melee doo am fan wi alaaja Mansour am parce que kuy wax lu bon di yàq mais boo moytuwul soo fan du gudd parce que réew mi dafa am ñu lay ñaanal te gisuñu la moo tax kenn ku nekk boo toogee di wax buñ topp bës yi nuy wut maa wax li gën a garaaw moo c'est que yow li mu tekki mooy yaay dof bi rek tu es le fou village mais Sénégal képp ku fi dem ba président di la décorer man dama jàpp ni tu le mérites le mérites te gis nga yàlla nu yàlla defal décoration bu jóge ci ci moom décoration bu jóge ci yàlla parce que gis nga am na taxawaay boo xam ne da ngay dégg ci addis ñu naan la yonent bi sallallahu alayhi nee na bëgg sa réew ci jaamu yàlla yu mag yi la bokk ku jàpp ni bëgg sa réew taw sa réew wax luy defar sa réew dara ëpp na ko doole xamoo li ngay wér mais léegi Sénégal dem nan ba palaato yi ñi ñi tàng sa ngalang daal moo fa moo xew léegi tàng sa ngalang lu la neex wax lu la neex wax ah, di wax yoo xamante ni amut bopp amutub geen ba pare ñooñu nag ñoom la ñu def léegi ay star cest Sénégal on fait la promotion des médiocres des médiocres te gis nga man dama jàpp ni man su ma xam naa su ma amoon télévision pour nga def fa émission dina jafe trop parce que xam-xam dëgg dëgg dëgg laa fay teg duma fa teg ku xamut dara parce que ñàkk xam dara sax mooy di critiquer loo xamut nu mu demee Baaba Maal bu ñu ko décoré ci réew mi mais loolu en tout cas les hommes de culture bu ñu amoon décora man su ma amoon décoration décoré naa Baaba bu yàgg décoré Youssou Ndour bu yàgg décoré Ismaïla Lo sama xarit ba bu yàgg a yàgg a parce que dañu xam nga turu réew turu réew sunu réew yi sax bu nuy dem ci ay institution di leb wala ñuy dem ci institution ñu war leen a jox cër xanaa xamoo ni turu réew ma sax ci la bokk Sénégal c'est un petit pays par la superficie par la population mais c'est un grand pays amul benn addu fooy dem ci àdduna te xamuñu le Sénégal loolu nag am na lu nu ko may du du du parce que président bi la rek non c'est les hommes de culture c'est c'est le comportement des Sénégalais c'est c'est c'est vraiment ni Sénégalais yi mel biti réew boo demee ci ins organisation internationale yi da ngay fekk sénégalais jiite ko wala mu topp ci ko ko jiite tey jii boo demee Nations Unies ñaata cadre sénégalais ñoo fay liggéey UNESCO bii ab sénégalais moo ko njëkk a jiite muy Amadou Mahtar Mbow yàlla na gudd fan gën a gudd fan nga yaakaar ni loolu ñooñu defuñu dara ci réew mi parce que yow nag jamono ji nga xewe mooy bi taasu xewee ak taaxuraan ak tàng sangalang ci nga xew yow moo tax lu la neex wax mais yow normalement dañu war a jéem a daba leen ma kees ma am ñu ma cotiser ñu fay leen pour ñu noppi parce que vraiment il na mérite pas d'avoir la parole li ma la doon wax naa la royaume yi rek dafa am ku daan jox baat bi muy wax mais léegi ñëpp a ñëpp am baat di wax loolu nag mooy mooy làmbi golo ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëriñ bi noo tudd ak foo ne woowee. waaw maa ngi tudd Boubacar Bathily di la woowee Daara Jolof. acca bismillah Boubacar. maa ngi lay woowee Daara Jolof mais maa ngi dëkk bi dëkk bi ñu naan Dagana. ah Dagana dëkku Maxtaar Cissé. voilà dëkk Maxtaar. Maxtaar sama xarit dëkk Maxtaar Cissé dëkk suñu yaay ay di njoom ma. wax nga dëgg. donc yow moom suñu grand frère bu baax na dañu lay suivre chaque jour émission moom duñ duñ ko mën a tardé. Ah? man si émission bi moom duñ ko mos a tardé toujours ñoo ngi koy nag da nga da lu daw yaram te suñu maam El Hadj Mansour Mbaye. waaw. dama bëgg nag ñi ñi mën a tiktok rek ak ñi mën a partagé. li nga wax ci suñu maam jooju lañ nañ ko jël def ko tiktok partagé ko. Mhm. parce loolu mooy lu baax. Mhm. li nga wax ci moom. Mhm. wax dëgg yàlla man bi mu koy déglu sama yaram dafa daw. dëgg la. yow nag dañ lay mhm. te maa ngi ñaan président de la république ñu ñu ñu muy décorer yow nan la ci woo décorer la yow. Mhm, mhm. wax dëgg yàlla. yéen li ngeen di liggéey te yàlla tax. li ngeen di wax te yàlla tax. seetoo leen ci kenn surtout yow man bi ma nekk xale bu ndaw ba léegi maa ngi lay seetaan te nga nekkoon ba léegi foofu nga nekk fii. surtout amul benn ligne boo xam ne gis naa yow mii tey da ngaa soppeeku da ngaa mel nii da ngaa mel nii déedéet gisuma ko. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. te ay damay wax rek suma diggante yàlla man xaw ma la ci télé bii laa lay gis. yaa ngi dégg. te li may wax ne suma diggante ak yàlla laa ci xool. wallaahi wallaahi. xam nga nit ki moom mun nga xam sax ngeen xamante nga wax ci moom ñu ñu yaakaar ni leneen la. mais yow suma diggante yàlla tax may wax. donc man mii nag artiste la musicien la damay jouer damay way damay damay analyser. Mm-hmm. donc ëpp euh, bi li ma gis rek laa mun a wax. Mm-hmm. donc euh, li nga jàmm loolu rek moo taxoon na participer bi nga bi nga bi nga suñu maam jooju. Mm-hmm. Alaaji Mansour Mbaye ak suñu maam jooju aussi Pape Seck Dagana. ma ne ah tey moom du ma def lu dul dugg si émission bi wax dëgg yàlla. dëgg la. <laughs> donc euh, ma ngi ñaanal bonne émission merci. dëgg la jërëjëf. nekkal si jàmm. jërëjëf Boubacar suñu mbokk moomu ñuy woowee waalo ban nag Daba. bu ñu tuddee Dagana rek sama xel dem ci Mouhamadul Makhtar Cissé waaw yal na yàlla guddal fanam te jox ko teraanga ju mu bëgg ndax ñun waa ngool ngool moom dooru nu fàtte kuy maxtar Cissé ndax bi mu nekkee directeur général u ci la nu indil électricité ndax bu Sénégal xamoon boppam dëgg sax ngool ngool bu yàgg lay am électricité ndax euh, le 26 décembre le 26 décembre. 1862 la fa Lat Joor def euh, tubaab bi ah loolu loolu ëpp naa fàtte ngol-ngol nga xam ni 114 pay la fa Lat Joor rey ak quatre officiers tubaab ñu yor seeni kanu yor seeni yëf Lat Joor ànd ak ay xale ay vingt ans vingt deux ans vingt cinq ans ñu bett leen ca teen ba ca ngol-ngol dégg ba rey ci 114 keroog tubaab yi dañ doon ubbi sàq yi di fa làqutu ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam. Euh, Alaaji Taaru. waaw soxna si. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. maa ngi leb nag tur bi. tur bi <laughs> lebal naa la. barewuma barewuma sax nag lu may wax ci télé. wax nga dëgg wax nga dëgg. waaye dama bëgg wax loo xam ne lii rek ba ki démb lañ ko wax ci ziaru Tiwaawoon bi. ah waaye soxna si warul woon a dagg waay ndeysaan waaw ziaru Tiwaawoon bi nag daba sunu xarit Aziz Ndiaye Aziz Ale Ndiaye dafa def lu rëy am naa soxna si ci loolu la bëggoon a ñëw mooy dafa dafa defar barabu sëñ di ba sëñ Babacar bi mbalaanum or. te mënoon naa jublu ci yeneen nekk ci leneen waaye du mag mais gone la goo xam ne tabarkàlla loxoom set na defar ba mu defar barab ba nag nee barab ba mel yal na yàlla defare noonu sa àdduna abadan parce que nag gis nga dàbb Sénégal léegi <laughs> réew mu garaaw a ngi nii nag maanaam léegi sax dañuy tere dàbba ni ko alaaj neexuma bul xaritook moom xam nga am na ñu baree bare dañ doon yaakaar ni maanaam euh, alaaj taal comme Macky Sall xaritama daal nangam nangam man wax naa fii mat na juróom-ñaari at xaw ma juróom-ñett man leen Macky Sall ku ko remplacer nii ma koy ñaanale laa lay ñaanale ndax man yàllaa ma bindewul may contre président parce que président bu échecgee man maa échec te man nag am naa droit wutub xarit Macky Sall c'est mon sama xarit la trois ans avant muy accéder au pouvoir waa léegi dama koy ba parce que du sa xarit yow wala da ko bañ mais yooyu nan ko bàyyi kenn ku nekk am nga droit choisir ku la neex muy sab xarit ni may tuddee dàbba est-ce que dégg ngeen ma koy tuddee kenn ci télé bi am aw ma ci droit am léegi dàbba du sa xarit nga ni ma noo elaaj taal bàyyil turu dàbba mais pour lan yow bëggal ki nga bëgg bàyyi ma ki ma bëgg te yow sax xawuma la bu ma la xamoon sax par exemple nga mën a wax ni ma kii sama xarit la kaay ma présenté la ko mais xamoo ma xawuma la ma amub xarit nga ni ma xarit sa xarit bi dama koo bañ bañ ko mais c'est lan la Macky Sall il restera toujours mon ami waaw président bii fi nekk waatal naa la ci yàlla ni bu ma yoroon gàllaaj goog bu ma ko joxee lépp réussir bu subaa ma defal ko parce que bu réussir ma réussir courant bee ma euh, ci nguurug Macky Sall ma am ko ca est-ce que nguurug euh, Diomaye day ñëw dajji ko mais yéen il faut bien réfléchir quand même ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum salaamaaleykum allo ah waaye nag Grégoire mbaadu sa daanu ki nga daanu ci moto bee jàpp téléphone bi <laughs> moom nag yàlla na am oto ngóor su jàmbaare la waaw yàlla yàlla na la yàlla may oto yow moom vraiment tu es un tu es un gosse extraordinaire tu es un waaw ah ah yow di nga am yow di nga am oto yow yow jomaay sa xarita léegi nga am oto <laughs> président bi sax sa gaay na walla jeex na waaye man man de président bi doon sama gaay na sax joxuma oto ba dem na yoon ah mais xam nga nag gis nga dàbba lépp luy sa wërsëg di nga ci jot man maa la wax loolu de ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Ah, alaaji maa maa maa doon wax ak yow mu dagg waaw kay mu dagg waaw léegi mm-hmm. Pa Maxtaar Kébé dafa wax wax boo xam ne mm-hmm. sëriñ Aboubacar si xalifa moo ko wax loo mm-hmm. xëy na sax du sa sujet tey waaye dama bëgg comme yow am nga kàddu ñu ngi lay déglu macha allah nga nga waxaat ko nee na xale yi xale yi man ci jigéen yi sax laay wax xale yu jigéen ñi nañu nañu waddu nañ gën waddu jigéen amul lu dul bopp wallaahi wallaahi la la ci jig góor jigu ci jigéen déedéet déedéet la ci jig góor jigu ci jigéen wallaahi wallaahi alaaji mhm. ba ñu xewilee laabaan ci la mhm. musiba am ci ca la lépp yàqoo ndax laabaan mhm. dafa daan am sa yaay yàlla fajar. wallaay waxtaane naa ni la ni la yaa ngi dégg. Mm-hmm. mu ni la kër diw la. Mm-hmm. te diw ak diw ak diw la jur. Mm-hmm. gis nga ni mu teralee bokkam. ah man de su ma amul lii danaa xaru ji. dëgg la. su ko defee. doo nekk nekk xale ala ji taal du ma la wax maay kan xam nga ma bu baax xam nga samay bokk ci pays bu mag laa bokk. dëgg la. sa ndey danaan la lii su ma ko amul jaral na ma xaru. dëgg la yaa ngi dégg. dëgg la. taxul mu xar ji waaye dafa la doon ñax rek. Mhm. dafa la doon ñaax. Mhm. alaaji. Mhm. nañ wax ci xale yi nañ wax ci xale yi. yenn borom yenn ndey yi. nañu dellu si ñun wees nañu ndax tey ñoo ñun ñun suñuy rek a fi nekk am ñaar fukki at ak lu topp presque fanweeri at. wallahi baru lii dama toog rek man dama lay seetaan yenn saa yi rek nekk sama kaw lal te di janoo yow <laughs> waaye man daal lii dama bëgg nga wax ci wax ci wax ci wax ci ndaxte bu sama benn sër bu nekk université dafa ni ma maam xanaa xamuloo ni léegi y a des produits yoo xam ni tu peux faire ce que tu veux après si tu es marié da ngay dem ci médecin xaw ma ñu ñu ñu ñu defal la ko tu es comme jeune tu es comme vierge. ah mais c' est inquiétant. c' est inquiétant. c' est taal ngol ngol ñun ñun ñun ñun sunu sunu doom yaa ngi yàqu topp nañ te pourtant. li ñu nekk nekk mag jàng nañ fu sore. c' est triste. jàng nañu fu sore waaye nous avons gardé nos valeurs. oui yàlla na nu yàlla dëppaat rek. yàlla na nu yàlla dëppaat. yàlla na nu yàlla dëppaat yéen leen jur. yéen leen jur tey yéen a jur suñu sët yi waxtaanal rek waxtaanal gën leen a rek dégg nga waa kay taal. jërëjëf jërëjëf taal taal gis nga dàbb xam nga man waxtaan naa ba tàyyi ci laabaan ni la ba mu fi xewee la ñàkk jom xew parce que laabaan li mu tekki te gis nga yooyu yëpp complexe moo ko indi maanaam dafa da ay juróomi jànq dañuy bokk benn koñ wala kër kenn ku ci nekk sa yaay di wax ak yow. pour bis boo demee ba am borom kër ñu jébbale la nañu fekk nga fees dell produit amut piqûre amut dara amut da ngay téye sa skumba takk ko ba mu dëgër am jom téye sa bopp ba gis ku la bëgg takk la ñu jébbale la fajar sa géwal ñëw fekk fees nga dell di la woy sa moroomi janq ñëw tiim la kenn ku nekk sa sa yaay naa la ah kii de moom da doon waat wàcc na xoolal ci moom man de bis bu nu bis boo boo amee borom kër ñu jébbale la te meloo ni moom damay xaru ñu xewil laabaan naan léegi da ngay gis ku takk jabar yóbbu ko hôtel hôtel lu fa xew pour lan otel parce que jàng ñu doon woo ñuy fekke si laabaan bi dañ leen doon wax ni essayer leen def comme moom parce que l'enseignement le plus valable en matière d'existence c'est l'exemple won la sa moroom bu doon waat ba wàcc léegi ñu naan yooyu non dafa salte ñu lay jébbalee di wane sër c'est parce que yéen li ngeen bëggoon mooy di def lu bon comme ni comme ni mu leen neexee xam nga ab ab ab saay-saay moom yëfi saay-saay rek la bëgg waaye xam ngeen ni Laban <laughs> Laban c'était important am na jigéen ñoo xam ne dañ leen a jébbale ca Kajoor wala Bawol wala Siin amuñu ndaw dañoo gàddaay ba fi mu ne xamu seeni bokk xamuñu fu ñu ne ndax gàccee tey da ngay gis ku nu ëmbal muy wër di woote téléphone naan sama ngénte tel jour la takk musique njaaloo ba am doom di ko musical xam nga la société la nga la mag ma waxoon rek nee na lu baax dafa jiitu woon lu bon topp ca ñu dem ba mu yàgg ñu ni dëpp leen waaye nan dëppaat nan dëppaat baax rek ñun boo doonu ñu yii de mais nag complexe bi la aussi xam nga dàbba nit bu fekkente ni defe na ni ku ko gën a da lakki tubaab ku ko gën a doonu tubaab ku ko dàq jàng tubaab moo la gën yow xamoo sa bopp réew mi li fi baax lépp ñi jàngul tubaab sax ñoo ko fi def li fi yàqu lépp ñi jàng tubaab ba sori ca li ci ëpp ñooma jàngu tubaab nun sax tubaab bi jàngalunu tubaab bi aw làkk la nuy jàngal ak culture mais tubaab bi nuy jàngal quatre siècles te mën mënagunoo defar Peugeot mënunoo defar euh, Renault mënunoo defar Citroën tubaab bi bu nu jàngaloon nu mënal loolu suñu bopp quatre cent ans mën a cure sax keroog ba ma ko gisee ci port bi damaa tiit cure-dent <laughs> doon sunum njàng dum njàng jàng la buur siin waxoon rek ba ko buur tubaab bi ne mënoo doon buur siin ndax jàngoo tubaab mu ni ko déet danga naan jàngoo mu ni ko danga naan jànguma tubaab waaye jàng naa saa bopp xam naa li ma war ak li ma warul xam naa li ma jomb ak li ma war a def loolu moo dim njàng waaw eh, xam nga laabaan ba mu xewee la lépp yàqu ak amoon solo laa ilaha illallah boo ko masaana dégg ndeysaan mbégte mi ngay defal sa yaay yow jànq bi ak sa baay ak sa bàjjan ak sa géwal mbégte moomu rekk jar na ko waaw mbégte moomu rek jar na ko waaye xale bu am quinze ans seize ans mel ni wu bëy ah mel ni aw bëy <laughs> saxurullah sax parce que lii dafa ñaaw quoi léegi xam nga tubaab yi ñoom boo demee Europe sëyetuñu concubinage la ñuy def yaa ma neex maa la neex ñu nekkaale bu ñu demee mënatuloo nekk nga dem saw yoon ma dem saw yoon léegi ñun foofa lan jëm foofa lan jëm concubinage dégg naa sax am na ci dëkk bi léegi dégg naa am na ci dëkk bi léegi sax ay ñaari ñoo xam dañuy dañuy neexante rek di ànd di di sëy comme nu mu leen neexe te takkante ba pare ni ab jullit lañu xam nga ni kooku wax dëgg yàlla yàlla nañ ci yàlla musal Eh, ziar bi amoon Tiwaawoon it noo ngi gën a ñaan sunu borom tabaaraka wa taala lañ fa ñaan lépp yàlla na ko xëpp ci Sénégal Sénégal am jàmm Sénégal am jàmm ñi nga xam ni ñooy soog a falu it eh, liñ leen jox rëy na lool waaye ñu def ci li ñu man ndax nag la Alburi waxoon rek nee na ku xeex ba dee kenn mënu la waaw ku xeex ba dee kenn mënu la kon yàlla leen yàlla jàppale Sénégal jëm ci kanam li ngeen fi fekk ngeen yokk ko yàlla dimbali leen sax ba ngeen def fi lu ko ëpp ndax nag noonu la àdduna yi doxee un état c'est comme ça c'est la continuité waaw ñun ñëpp it nu jàpp ci ku am xalaat bu rafet wax ko ku am xam-xam wax ko te ñi nga xam ni ñooy ay ministres it ñu ubbeeku bañ a tëju di tontuy leetar di wuyu téléphone di recevoir ay nit parce que am na koo xam ne ñëwul pour nga may ko dara dafa ñëw pour wax la luy defar réew mi ki lay wax luy defar nag wax dëgg yàlla. boo boo boo boo bu fekkee da nga bëgg a defar ñu ko wuyu ah, xam naa nag nu yem fii rek incha allah ba semaine prochaine bu soobee yàlla it suñu émission démb comme dàbba ni ko wax doon waxtaane rek dina tàmbali ci fan yi bu neexee yàlla euh, ndax émission la boo xam ni moo ma fi indi lii damaa dem ba gis rek ay yàqu-yàqu ci réew mi ma xam ni wax dëgg yàlla war naa ciy jël sama responsabilité wax ci ma wax ko borom kër gi ñu d'accord ci ma di ko def waaye man émission démb bi nga xam ni day dem ci pays di waxtaane aada yi ak cosaan yi ak les fondamentaux moom ma fi indi woon émission bu nu ñor la te nit ñaa ngi ma ciy soññi rek moo tax euh, maa ngi leen di ñaan incha allahu balaa yàgg bu soobee yàlla di ngeen gis émission démb ci seen télévision 2S TV kon nag asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu fi amaanillah jërë ngeen jëf dellu si waat na ci 2STV yi atum ren bii saison bii lu dàq neex dafa nar a darloo loxo gémmiñ ay looyu yu mag a mag yoo xam ne dina fi jooyloo mag